بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نهانا عن اتباع المتشابهات والصلاة والسلام على رسول الله الذي علمنا أسماء الله الحسنى والصفات ورضي الله عن علمائنا الأجلة الذين raddu ala ahli shubuhat wa daxadu shibaha muqatil ibni suleyman wa umar ibni alkarram walmutazila walxawarij wa gulaati alxanabila wa gayrihim min ahli albidaci wa saa'iri alfi'aat mbokk ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaare bi ñëw nag ci sunu xalqam ñaareel ci silsila boo xam ne tàmbali woon nañu ko euh, ginnaaw boo xamee ne xëy na do gars yi bi daay jotoon nañoo song suñu yenn sëriñ wane ne ñooña xëy na tubaab yi dañoo bind ci lii ak laa xam naa silsila bi nag li ko tax a jóg sax mooy leeral pas-pas yi gars yi ak wóote gi nga xam ne dañ koo wóote ak ahlu sunna waaye balaa loolu bëgg nañoo jël ñeen ci seen sëriñ leeral yenn yi borom xam yi wax ci ñoom kero jotoon nañoo jaar ci ku ñuy wax ibnu taymiya tey ñu war a ñëw ci ibnu qayyim al yi ñii nag daanaka ku xam dëgg dëgg yi wahabe yi da xam ne delluwaay yi ñuy dellu ginnaaw ibnu taymiya koo ci ëpp solo amut keroon nag li nga xam ne ay borom xam waxoon nañ ko ci ibnu taymiya jotoon nañ koo tudd tey nag ñu ñëw ci ñaareelu kilifa gi muy ibnu qayyim bu ñu noppee itam dinañ ñëw ci muhammad ibnu abdul wahab doonte xam naa fan yi di ñëw nag moom jot gi dana manqué waaye dañ koy def rek comme niñ ko mënee doonte sax par diggante xalaqaat yi dana sore ibnu qayyim nag aw mu ngi tudd Muhammad ibnu Abi Bakr ibnu Ayub mi ngi juddu atum juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn faatu atum juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak benn euh, moom nag boroom xam yi wax nañ ci moom boo demee ci al mu'jam al muxtas wax na ne yittewoo woon na mbirum xadis ak leen ci gaayi xadis yi yittewoo woon na itam mbirum fiq wàllu fiq nag nee na rafetaloon na ko nam koy taqriire nee na itam tëj nañ ko ab diir ngir ngir lan ngir daa weddi woon ne siyaare ji xabrub ibrahima alxalil loola da ko doon weddi di wane ne waris koo def maanaam tukki ngir siyaare ji ibrahima loolu la doon weddi ne waris koo def waaye dahab bi wax na lu am solo mu ne lakinnahu mucjibun bi ra'yihi jari'un ala al umuur nee na ku nawoon xalaatam la ku ñemee itam dugg ci mbir yi la moom ibnu qayim boo demee ci addurarul kaamina itam bokk na ci li ibnu xajar al asqalaani tudd ci ibnu qayim moomu mu ne galaba alayhi xubbu bnu taymiya xatta kaana laa yaxruju an cheyin min aqwaalihi bal yantasiru lahu fi jamii dalik mu mel ni loolu nga xam ne waxaab yi dañ ko faral di tuumaal waa tasawuf ne duñ génn seen waxi sëriñ wala dañuy farfar loolu lu seen sëriñ xas bu wax duñ ko weddi lu mel noonu xawees na ko tudd ci ibnu qayim diggam ak ibnu taymiya ndax ibnu xajar nee na la notoon ci ibnu ibnu qayim mooy bëgg ibnu taymiya ba nga xam ne daanaka du génn dara ci waxi ibnu tayim taymiya bal sax day jéem a seet nu mu lay ibnu taymiya ba wane ne moo nekk ci dëgg ci mboolem wax yi nag fi jamii dalik <coughs> mu ne waatuqila maa bni taymiyata bilqalaa baada an uhiina watifa bihi ala jamalin madruban biddurra ibnu ibnu xajar nee na tudd na ci ibnu ci doo addurul kaamina ne moom mii kat boole woon nañ ko Ibnu Taymiya tëj ginnaaw buñ ko toroxalee teg ko ci kaw gileem di wër boole di ko dóor moom Ibnu Qayyim euh, kon loolu lool bi nga xam ne dañ ko faral di tuumal waate soof defe naa kon waroon nañ koo mën a wax ci seen sëriñ boobu am na itam ay fatwa yu yéeme yu mu wuuteeg ahlu sunna yoo xam ne boo demee ci kutubu taraajum daañ koy faral di tudd ataqiyul xas xas nii tamit nee na ibnu taymiya daa bokkoon ci ñi nga xam ne da doon wax ne tukki ngir siyaare ji yonent yi daa aram ku koy def itam diisu la may nga wàññi julli ndax tukki bu aram la ko jàpp bokkoon na ci yi nga xam ne daan ko wax gu leer ne tukki ngir saare ko aram na muy xabru ibrahima ak xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala sallallahu alayhima wa sallam loolu ibnu taymiya façon nag dongaam bi ñuy wax ibnul qayim da ko caa fekk si woon nee na am bis nag ibnu qayim dem fële ci quds al sharif maanaam fee fee baytul maqdis ne ak al masjidul aqsa ibnu qayim yëg ci minbar ba waare ba mu neex ko waaye bii ci biir waare gi ne ibnu qayim bi mu tuddee masalam siyaare gi nit ku baax siyaar yam yonent ibnu qayim daa boole ca wax jëne man mii kat maa ngi fii ci Palestine waaye danaa dellu du duma siyaare sax xabru ibrahima bee moom jàpp na ne tukki ngir siyaare xabru ab yonent daa aram moo tax kon li muy jéege jéege xabru Ibrahima nga xam ne foofu la ne nee na day delluwaat fa mu dëkk waaye du ko siyaare nee na bi mu ñu wóoral ko boo xam ne jataay bu waare la muy muy waare ba tudd nag masadam ab yonent dem ba ne fala yazuru qabra nabi sallallahu na bi waxee loolu nag nit ñi ñi jóg fas yéene koo rey waaye wi mooy jaraaf jooju nekkoon ca Nablus moo mu waa Quds ak waa foofee dañoo bind yónnee Dimashq di leer la la nga xam ne moo xew foofee ak Ibnu Qayyim bi loolu amee nag àttekat bi nga xam ne moom ci ngirum Maalik la bokk woolu Ibnu Qayyim sàkku mu ñëw im tey im im xëy mu daal di wuy ji daa xaw a déngi déngi daa far sax mel ni kuy daw dem ca beneen attikat boo xam ne xëy na daa jàpp ne moo ko gën a jege doonte sax nag moom euh, ku xam xanaa bi lay dëgg-dëgg da nga xam ne bokkuñu gaa yi dëgg-dëgg luñ ne mu dem ci alqaadi yi Shamsuddin ibnu Muslim kooku nag qaadi xanbali la du maliki nee na wa aslama ala yadayhi fa qabila tawbatahu wa xakama bi islaamihi wa xaqa ni'damihi wa lam yu'azzirhu nee na ba mu àggee mu jébbalu ci kanamam nee na kooka nangu mu tuub maanaam attekat boobu nangu tuub ibnu Qayyim atte ne kooku kon waris naa mën a ñoŋal deretam bañ koo rey géttalu ko itam nag ngir ibnu Taymiya nee na ginnaaw bi ñu teewalaat ibnu Qayyim Uh, waddaa alayhim bi ma qaalahu fi lqudsi sharif ka nga xam ne moo koy tuumaal tuumaal ko la nga xam ne moom la waxoon fële ci Quds ak Nablus nee na bi ñu ko defee ibnu taymiya ne ibnu qayim fa ankar mu daal di weddi ne waxu ko fa qaamat alayhi albayinatu bi ma qaalahu fa uddiba wa xumila ala jamalin summa uciida fi sijn nee na bi ko ibnu qayim weddee ne waxutoon loolu fële ca Palestine ñu wut ay seere seere yi wane ne moo ko wax ñu daal di koy yar yar moom Ibnu Qayyim teg ko ci kaw gileem delloowaat ko ci kaso ba nee na summa uxdira ila majlisi Shamsuddin al-Maliki wa araadu darba unuqihi fama kaana jawaabuhu illa an qaala inna al-qaadiya al-hanbaliya xatama bi xaq ni dami wa bi islaami wa qubuli tawbati nee na ñu delloosiwaat ko nee na ñu indiwaat ko nag ci jataayu Shamsuddin nga xam ne moom mooy àttekatu Malik yi boobu mooy kilifa Malik boobu gi boobu bokk ci ngirum Malik booba nag moom daa mel ni ray ko lañ fas yéene woon waaye la Ibnu Qayyim tontu mooy man kat àttekat bi nga xam ne moo bokk ci ngirum Ahmad atte na ne sama deret def ko wala ñoŋal atte na sama islaam nangu na sama tuub tamit nee na fa uida ila al xabsi nee na ñu delloowaat ko ca kaso ba fañ ko tëjoon ñu delloowaat ko tëj tëjaat ko ila an uxdira al xanbaliyu fa axbara bima qaalahu wa uxdira wa uzira wa duriba biddurrati wa urkiba ximaaran wa tiifa bihi fi lbaladi wasfa alxiya nee na ba xanbali bi ñëw nag ñu àtte euh, ba xanbali bi ñëw nag nett li la nga xam ne moom la wax ñu indiwaat ibnu qayim yar ko dóor ko ay euh, yat ab dokk euh, ay dóor ko waral ko ci kaw mbaam di wër ak moom dëkk bi warat doofu ilal doo koo delloo nag te ko tëjoon waaye lu mën a xew rek ku ko xam-xam ne ku topp ibnu taymiya la woon daanaka moo doon bàyyi faalu ibnu taymiya moom ibnu qayim taalif yi ibnu qayim ni mu ko yittewoo lépp lu aju si moom ku xam ibnu qayim ku yàgg nga gis ay mbindam da nga xam ne daanaka bu dee sax borom kashfu dalalat ibnu taymiya xërëri day wax ne daanaka lu bari lu muy taqrir wax ibnu taymiya di ci def tasarruf rek nga uh, xam boo ko boo miiru ko wax Ibnu Taymiya di di ko lu bari ci boo ko xamee da ngay xam ne daanaka xalaat Ibnu Taymiya rek la Ibnu Qayyim jëlaat waaye Ibnu Qayyim am na yeneen aqaid yu xaw doy waar yoo xam ne ci wàllu usul yi ahlu sunna bu ñu ko déggee dañuy tiit te du sax waaye da cay boole di ko askan ahlu sunna naa moom lañ fas lu ci mel ni juluus boo demee ci téere mi da ngay gis mu di ko askan ay kilifa yu bari yoo xam ne fu ko suñu loolu sanad yi mu indi du wér dañ ci jël misaal rek ku mel ni daara qutni ibnu qayim boo demee ci badaa al danaan daara qutni moo ne wala tunkiru annahu qaacidun wala tunkiru annahu yuqacidu baat bi nag léeg-léeg day xaw a suufi mu fekkee yenn araf yi génnut nga xam ne loolu ko waral nit ki bi may mujj a wax baat bi mujj bi day mel daa jëy njëkki dem wala tunkiru annahu yuqaidu laa bëggoon a wax wala mu ne daa raqut ni moo wax ne bu leen weddi kat ne moom yàlla daa toog wala bu leen weddi itam ne yàlla toogal na Muhammad ca kaw arash te daara xut mii ne xam na ne fas fas bi yuru koon bal sax albani ci boppam li muy nekk nekk wahaabi yi nangu na ne bayit yi moom wérut wérut ne daara xut mi moo ko ak yeneen yi nga xam ne Ibnul Qayyim maa ngi koy askan ñeneen albani ci moom nangu na ne yooyu moom bu dee ci wàllu sanad wérut ne ñoo ñoo ko wax du waxe Moustapha Sy la waxe albani te ku ko weddi nga liir muxtasarul uluw albani Euh, ak yeneen aqaid yu doy doy waar boo demee ci nuuniyam bi da gis ne rek ay njaaxum yu baree bari man ko fay tudd ni ki yàlla daa war ci kaw aras daa war ci kaw dara ki euh, loola naa kiik kiik na yow boo toogee ci kaw teg waroonu fas lu mel ni fas boo ci waroon waroon euh, ak teg noonu mu naan kiik kiijee muy melal yàlla ci lu mel noonu ka raxle ab tab raakibun ajlaani ak yeneen yu garaaw a garaaw ay mbir yàlla daa tooga ak bal sax aqidatul xulul da ngay gis ne da koy am ndax euh, moom bu leen fàtte bokk na ci ñuy wax naa yàlla day wàcc fii ci suuf di wër waaye nag defe naa mooy xulul gu mag yi bu fekkee yàlla mën naa wàcc kaw mbindeef ba ci suuf si moom defe naa fa la fa la fa euh, la fa la bët yam euh, kon daal lii tamit la woon boo xam ne ci silsila bi nga xam ne dañ koy indi waane fi waxaabu yi wuuteeg ahlu sunna te sikkire bu gudd gudd la nag moom xam naa du gaaw a waaye ci euh, leeral euh, euh, wuute gi nga xam ne wuute nañ ko ahlu sunna ndax fi ne boo xoolee yi ko doon tëje moom ibnu qayim mii ci ko xis ni nettali ak ñi mel ni moom wuute gu mu ahlu sunna ci ay masala rek daanaka moo koy waral te lii sax léeg-léeg sax ci masala faraaya yi lay doon ni ki chaddu rexaal ak yu noonu waaye léeg-léeg sax ci aqaayid yi itam di xam nga aqaayid yu garaaw garaaw loolu yàlla day toog yàlla day wër ak yàlla day dugg ci suuf nii nii naa ak yeneen yu bari yoo xam ne boo dee livre ay téere sax dem ba benn euh, nga tiit euh, kon kii kenn la ci ci defe daanaka ginnaaw yi mu tey mi xam ma ci waxaab yi ku ko gën a fës ci seeni kon xam naa ñu yemandi fii buñ amaatee buñ ñëwatee ci euh, troisième xalqa bi loolu ñëw ci mbirum Muhammad ibnu Abdul Wahab ginnaaw moom gaa yi moom nangu nañ sax seerek tubaab ci sëñ Tuubaa yaakaar naa seerek borom xam yoo xam ne dañ dañ ko war a dañ war a kon xes xes nii mi sax defe naa am na ko mu wax lu garaaw moom seen bu dee eh, eh, yenn borom xam jullit ñi sax moom nanguwuñ jullituk seen sëriñ ñoom waaye ak su mën a xaw nun moom takk fiir moom soorun ci noonu waaye ku nangu see rek tubaab Sëriñ Tuubaa war a nangu see rek koo xam ne moom ab jullit la ci ab jullit xanaa euh, ñeemani fii ba euh, ba beneen